yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban billah auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ak fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare ak mbooleem ñi ñuy teewlu ñëpp ci réew mi TV ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi loolu te wér ak mbooleem kilifa yi ci senegal ñëpp eh, ak mbooleem ñi ñuy teewlu ak fu ñu mën a nekk di ñaan weer wi ñu yeggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin te defe ko ni ko suñ borom santaane tey ñu dikk ak yéen rek ci yi nga xamante ni mooy yàq koor yi yàq koor nag mu ngi tënku ci fukk euh, bi ci njëkk mooy euh, mooy jote ci góor ak jigéen muy lu mel ni sëy képp ku ko def ci weeru koor si bëccëgu weeru koor sa koor yàqu na euh, xam naa dañ koy tënk rek ci bu ko defee ndax waxtu wi bu ko bu ñaareel bi mooy lu mel ni génn maniyu nit ki génn maniyu te yàlla dogal na xëy na bànneex a ko génne xool dara wala yu mel noonu ba mu génn ci moom kooku itam na xam ni euh, kooram yàqu na bi ci topp nag mooy wàcc tey ko ki nga xamante ni dafa forcé ba wàcc te tey ko kooku itam na ni euh, kooram yàqu na euh, waaw li ci bi ci bi ci topp mooy wann dara mooy loo mën a wann rek ak fu mu mën a jaare ci yow rek nga wann ko moo xam mu jaar ci sa bakkan wala yu mel noonu ba jàll ci sa buli te yàlla dogal itam euh, yaa ko tey loolu day daal di yàq koor euh, ak loo xamante ne day mel nekkoon kon toire lañ koy wax ak yu mel ni moom di ko jëfandikoo ba yàlla dogal mu yegg ci sa biir ci sa mbaq loolu itam képp koo xamante ni utiliser nga ko yu mel noonu loolu itam na nga xam ni euh, day yàq koor moo xam lu lu lu nooy la wala lu dëgër la comme lu mel ne tey ki jël lu mel ne dërëm wala dara wala bul sax ko ci gémmiñam yàlla dogal mu jàll loolu day yàq koor saa bu jàllee bu yeggee ci ak mbàqam rek mooy kooram ci bis boobu day daal di yàqu euh, ki nga xamante ni itam dafay suuroo lu mel ne cuuraay maanaam sëgg ci ba mu àgg ci buli gi kooku itam kooram day yàqu kon lu mel ne ay cuuraay ak xeet yooyu di ko suuroo ci bëccëgu weeru koor loolu day yàq koor bi ci topp nag mooy saxaaru cin maanaam jigéen juy togg nekk ci waañ taxul ñuy wax waaye ki nga xamante ni dafa ñëw fekk cin lu ñuy togg mu tijj ko sëgg ci ngir saxaar gi dugg ko kooku saa bu ko defee rek na xam ni maanaam euh, kooram yàq na ki nga xamante ni dafa wocc itam dañoo waxoon sànq koo xamante ni dafa wocc te tay ko waaye kii nag bu woccoote tayu ko sax waaye dafa génn ba noppi mu yëg ni génn na ba mën koo tuflee te tufliwu ko mu bàyyi ko ba mu mel na lor wala yooyu kooku itam kooram yàqu na ndax bu dee dafa génn rek daf ko war a bàyyi mu génn bu génnee nag ba noppi maanaam euh, su boobaa maanaam euh, koram euh, na na dafa am nu koy defaree waaye nag su fekkee nag dafa génn ba yegsi ci ci buntu gémmiñam mu wan naat ko su boobaa moom maanaam kooku moom kooram day dal di yàqu ak koo xamante ni itam da ngay njàpp ba toll ci mel ni gallaxndiku wala nga saraxndiku maanaam ndox ma daal di dugg ci sa biir bàkkan daal di jàll su fekkee ndox mi dafa dugg ci sa biir bàkkan jàll wala mu dugg ci sa gémmiñ nga bàyyi ko mu jàll su boobaa koor ga day daal di yàqu koor googu nag bu yàqoo itam dañuy wax ne kooku moom bis booba day day day téye boppam ci lépp lu jëm ci lekk ak naan ba ba bis bi di jeex waaye nag su weer wit jeexee benn fan rek moom lay fayat kon loolu mooy fukk yi nga xamante ni moom mooy yi yàq koor loolu moom lañ leen indiloon tey ci seen yóbbalu bis bi nag dañoo wax ne dañ koy dénk ñi nga xamante ni ñoo bëgg yàlla ñëpp bëgg yonent bi sallallahu alayhi ak bëgg sëriñ Tuubaa ndax dafa am benn dénkaane bu mu defoon wax ko mboole murit yi waaye nag jullit ñëpp ko bokk dafa wax ne man tawajjaha ila rahmaani rahim raafaqnaahu wa man tawajjaha ila seytaani rajim faaraqnaahu wa man tawajjaha ila llaahi tabaraka wa taala maa seytaani rajim faaraqnaahu nee na képp koo xamante ni jublu nga yàlla yàlla mi nga xam ni mooy rahmaan te mooy rahim nee na nga xam ni maak yow ñoo ànd waaye képp koo xamante ne da jublu seytaane sëñ Tuubaa nee na nga xam ne maak yow taqalikoo nañ waaye képp koo xam ne da ngaa jublu yàlla ba noppi jël saytaane boolewaat ca nee na maak yow itam tàqalikoo nañ nee na man kenn rek laa àndal mooy ki nga xam ne dafa dëkkmal yàlla te malul seytaane waaye soo dëkkmalee yàlla ñu ànd waaye soo dëkkmalee saytaane ma bàyyi la soo dëkkmalee yàlla boole ci saytaane itam ma bàyyi la kon loolu moom mooy yóbbalu bis bi ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm euh, ñu ñëw ak yéen ci li nga xamante ni mooy naafil ak bis bi naafil ak bis bi euh, képp koo xamante ni julli nga ñeenti rakka rakka bu nekk nga jàng ci faatiha jàng ci alam nasrah la kasad rak xul huwa allahu ahad ñetti yoon nee na képp koo xamante ni def nga ko suñ boroom dana la defal ajub ku dana la defal yoolub ku aj màkk junni yoon xumra junni yoon te yàlla dana la ubbil bépp bunt boo xamante ni buntu tedd nga la loolu suñ boroom dana la ko defal te yàlla itam dana la bindal eh, tiyaabay képp koo xamante ni jàng nga alxuraan tey dana la booleek ñaari malaayika yoo xamante ni ñoo lay bindal aw yiw woo xamante ni dootul dog ba mukk kon loolu rek war naa tax ba kenn ku ci nekk nga fexe euh, naafila gii nga mën koo def ci bu la ko suñ borom mën loowee yàlla nañ suñu borom defal dégg ak topp ñu ngi leen di sant bu baax yéen ñu doon teewlu ak fu ngeen mën a nekk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu إله